salaamaaleykum ñoo ñoo ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp di wax ni li am nii yéen a ko gis yéen a tegandoo seen bët ñun amuñu lu lii li leen gëm liggéey liggéey jaamu yàlla sunu waajur moo ñu bàyyi képp ku ñu xam ñu xamee mooy daan doole liggéey ñu jóge Espagne def fa huit ans bàyyi Espagne ñëw senegal ngir la jariñu ñëw fi di liggéey di daan suñu doole dimbali suñuy waajur mais soxor ak iñaan moo waral lii amuñu kenn xaar ma yàlla sàccuñu jëfuñu jëluñu daal yëfi jàmm fii ku ñu fi gis ku ñu fi xam xam ñu si liggéey xam ñi si jom xam ñi si bëgg sa liggéey xam ñi si tey bu ñu bëggee tool tey suñu waajur moo tax mais dañuy sant yàlla delloowaat lépp ci loxoy yàlla ar bii daaw dañ ñaax suñu waajur lii nii moo na ko moo na ko wutaloon moo na ko joxoon moo na loo liggéey bi ñu delluwaat lépp yàlla suñu borom parce que tey jii liñ daaw métti na lool mais dañuy delluwaat lépp ci loxo yàlla parce que suñu waajur yu fi jógee tamit rek la ñuy xoolaat suñu xel demaat ci moom suñu rangoñ tuuru parce que tey jii ku di ab baykat képp ku di baykat te xool lii rek bu sa xool amul lu ma laaj rek kon sa mbëgg mbay des na te ndaw yi Sénégal da leen war a jàppale muy muy président di lépp lii daanaka dafa rafetul ñu jëlaat suñuy matuwaay te xam ne ndaw yi ñooy doon mag mag ëllëg gëstuwaat te xam ne ñu ngi xëy trois heures quatre heures cinq lii lépp xam-xam nga daal la la moo ko waral maanaam ñàkk pomme bu jar nit day nekk si àll bi financé lebi million lii rek lañ yaakaaroon lii laa waroon a suturloo man sama waajur samay njaboot fi leen ni xañ nan ma ko ñi ma employé ma yoroon léegi lu ma leen di fay ah nit du soxor nit duy ñaan. li nga ñàkk fi waaw fi ne nii lii boo xoolee presque ay une tonne quelque la ah li fi defoon laa ci la semence. Mm-hmm. une tonne et quelque. mais waaw. waaw maanaam lakk boo ko xaymaaree presque day daal dix mm-hmm. waaw ci xaalis. comme peu ay ay six millions sept millions rek. te tey jii boo ñàkkee six millions sept millions yoo xam ne da ngaa demoon lepp léegi fan ngay jëlaat six millions ak euh, sept millions ci koo xam ne ndaw nga ngir daan sa doole sàccoo ñun sàcc ñu lii leen am te ñun waa Kayar lii mooy suñu liggéey. Mm-hmm. te dañoo am beneen tool boo xam ne aussi dafa tudd Xelkom suñu waajur moo ñu ko bàyyi depuis bi mu fi jógee ba léegi ah ñun xam na ni kat leen rek la ñuy jooy suñu waajur bi fi jógee tey day leer ni lii am nii ak lii xew yëpp bu fi nekkoon barke Cheikh Rafal lépp du am mais dañuy delluwaat lépp loxo yàlla santaat Serigne Saliou ne woon na bala mu gisul naa leen bàyyi ak Serigne Saliou Serigne Saliou moom mu ñu bàyyi ma ba léegi ñu ngi si suñu gëm-gëm lépp Serigne Saliou suñu waajur nag Ndiassé Ka maire et député de Kayar ku ko déggul xam na ko ku daan dimbalee jàppale jàmm yow musul bëgg kenn am lu ko naqari musul jël yëfi jàmbur. kon nag message ngay euh, état bi. état bi daal leen dong laa lancé ñu jógaat defaat seen i matuwaay te jàppale baykat yi te xam ni boo demee ba Europe Espagne ndaw yi fi jóge fii yëpp koo fi woo mu la maa ngay maa ngay liggéey ci tool yi laay liggéey kon nag état war naa dimbali ndaw ñi ñun danoo danoo dagg suñu yitte dagg lépp ngir mbay ngir suñu réew ngir jariñu kon état moo war a jàppale ndaw ñi ay ndaw nag pour ñu jëm si kanam état da siy jàpp indien bi sa mu nga dëkk ca dëkkam est yaa ngi dégg état moo koy jàppale yaa ngi dégg état Sénégal moo koy jàppale ñun ñi nga xam ni doomi Sénégal amuñu ku ñu jàppale tey boo amul ku la jàppale foo jëm amuñu stockage lii bu nu amee stockage xam nga ni moom kenn du la fekk daal sa stockage laa taal sa yëf ñàkk stockage moo mel ni da nekk ci xëy 3 heures 4 heures nekkaat fi ba minuit 11 heures nga dem ñibbi te xam nga ni lii. ah man daal maa ngi ñaan képp koo xam nii ju képp koo xam ne ab jullit nga di ñaan saa boroom di ñaanal ñëpp lii ngeen jóg ci te taxawaat te xam ni waa Kayar amuñu lu lii ñun ndawi Kayar li leen am bëgg na nag képp koo xam ne yaa ngi gis lii nga def sa kéent laay kàttan ngir jàppale jo joomu yàlla yi ñuy lancer Macky Sall nag te xam ni yow ak sunu baay ay wóolare woon ngeen war ngaa gestuwaat Baye Ndiass te xam ni foo yegg tey yàlla ak Baye Ndiass moo la fa yeggal barki Serigne Saliou ne woon na la doo jàkk doo tiit doo raf kon nag war ngaa tourné waat xoolaat njabootam xoolaat waa Kayar te xam ni waa Kayar amuñu lu lii Macky sigilaat nga xoolaat somos unos personas vivimos desde España hemos venido aquí a trabajar hein eso es una cosa increíble yo lo único que sé en, el mundo es trabajar. Ya ves, hoy en día he venido, he dejado mi España durante ocho años. He estado ahí estudiando durante ocho años, aprendido todas las cosas y no me gusta España, me gusta mi país. Yo soy un senegalés, quiero trabajar por mi país. Entonces, Maquisal, tú estás escuchando mi voz. Seguramente que yo lo que estoy hablando es en serio de mí. quiero que me escuches, que el mundo, los jóvenes son los que uh, ah, llevan el mundo adelante. Me llamo Moduka, vivo en Senegal, en Cayar. Mi padre se llama Yasique. Gracias a todo el mundo.